te ñun defuñu jënd jàpp ñu defuñu jënd jàpp ñu sëriñ Béthio comme ñu comme ñu wax nañu moom la moom la comme ñu waxul nañu du moom du moom mais 17 avril 17 avril sëriñ Béthio kan la yebal mu dem toog fa soxna Aida da yebal mu dem toog mais ay doomam bu ñu matoon lu ñu doon sëriñ Béthio ñoom lay yebal ñu dem toogi ji ñu dem toogal ko palaasam ndax matul lu mu doon bi sëriñ bi du dund muy def li muy def ñu ci teg bëtam ñun bu ñu wonee ginnaaw loolu noonu la ñuy continuer di ko def ñun ñun duñu war a sëriñ Béthio mukk xalaatuñ ko ndax sëriñ Béthio suñu lépp moom la ñun moo ñu def nii nii ñu mel ñu mel sëriñ Béthio moo ñu ko def sëriñ Béthio moo ñu def ñu nekk ay murid saadix ñun moo ñu ko def ñun lépp lu ñu am rek sëriñ Béthio bu ñu amee suñuy dërëm suñuy ñaar dërëm du ko jëfal sëriñ Béthio sëriñ Béthio moo ñu xamal kan mooy sëriñ Saliou sëriñ Béthio moo ñu xamal kan mooy sëriñ Saliou mën a mën a mën a mën a mën a mën a boo gis day dangay toog xaar bañ na yow wax sëriñ Saliou gël tàppe toogal xaar bañ na yow wax wax ak gaaruwaale ci jigéen lañ ko waroon na séentu pas taaguur mais yow lan ngay ragal lan ngay taf-tafi lan ngay patine lan ngay ragal yéen soxna Aida avant muy simmeeku ngeen ko commencé attaque laa guerre pour lan ndax lan dërëm nga xam ngeen bokk mbokk taalibe dofuñu bokk taalibe dofuñu jënd jàpp leen dofuñu ndax xam nañ ne Serigne Béthio léppam ginnaawam léppam dakaa defar ndax xam na Serigne Béthio xam na ay njabootam bu baax a baax a baax Serigne Béthio nag su leen wanee ginnaaw tey ngeen nekk fi di di di di di di di di di defanteeg suñuy nday yi tedd yii <laughs> Serigne Béthio dafee newul te ba fi Serigne Béthio nekkee ñeme leen ko woon ñeme leen jàkkaarloog benn presse di wax ci suñu nday yi yi ndax Serigne Béthio mayu leen ko woon ndax xam na kan mooy ay doomam Serigne Béthio xam na leen bu baax a baax a baax. soo leen matoon li ngeen doon soo leen ko matoon kon taalibe sëriñ Béthio mën nga leen a doon mais taalibe sëriñ Béthio mënoo leen a doon ndax lan xaalis ngeen gëm ak kër ay otay rafet belle vie loolu noonu ngeen xam soxna ay da daa jaay njuréem jëndee ko taalibe soxna ay da wëlbatiku jaayaat ñun suñu njureel ñun ñun jëfalee ko sëriñ Touba soxna ay lépp lu ma am jëfal na ko sëriñ Touba soxna Aida lépp lu ma am jëfal na ko sëriñ Touba man maa ngi déglu benn vidéo ba nga xam ne am na benn doomu sëriñ bee jox ma wax sax turam naan euh, nag yi nag yi nag yi soxna Aida di jëf nagu mbalit la <laughs> kon de yàgg ngaa lekk nagu mbalit nagu mbalit ba nga xam ne bañ leen ko joxee ci màggal gi delloowoo leen ko millions yi leen millions yi mbalit yi leen jox ci màggal gi delloowu leen ko teg si fu leen tiimalee micro ngeen wax ci ki ngeen xam ne moo leen sagal. ngeen wax ci moom yéen sëriñ yooyu yéen soxna Aida da leen a gën a gore soxna Aida da leen a gën a gore yéen nag da a gorewul ndax yéen soo leen gore woon ni ngeen fàttaliku démb soxna Aida fii ku fi yor sa làmmañ di tartari di wax di wax soo leen wéetee rek ngeen wéetal ngeen wéetoog suñu boroom ci bàmbel di ngeen xam ne soxna ayda def na ci yéen lu mu bon bon defal defal na leen teraanga. waaye waa Sénégal dañu xippi seen bët di xool yéen soo leen matoon palaasu sëriñ bi soo leen ko matoon mat ko mat ko kon mbokk taalibe yépp ci yéen ñooñu noonu lañuy ñëw jébbal mais matoo leen ko parce que ndax lan ñun man de man ak samay moroom a ci yam ñun waa ñun waa kër sëriñ Béthio ñun mësuñu dégg ñun ñu ne doomu Serigne Béthio moo ñëw ziyaare lii sëriñ Béthio musta am ya Serigne Béthio jàppee wala leen ko sëriñ jàppee wala ko Serigne bàyyi ngeen ko jàppee bàyyi bu yëkkati dërëm di leen ko jox yéen mosoo leen yëkkati seen dërëm jox ko Serigne Béthio Serigne Béthio mu yëkkati dërëm moom di leen jox waaye soxna ay ndokk ba ko Serigne Touba defalee mu jël borom këram gi daf ko ab sang di ko jëfal di ko jëfal wu xamal ñu. lan mooy jëfal sëriñ Touba li ko li ko soxna Ayda di wax naan ni moom da di lantinoor ñun de santaat nañ sëriñ Béthio bu wér ndokk ba topp ñu nag sëñ Saalum Dieng tàppi ndokk ba topp ñu ko da ngeen di xool waa Sénégal nañu xuppi seeni bët xool soxna Ayda ñu ànd ak moom ñoo nekkoon ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Serigne Béthio jàmbaar ya àndoon ak Serigne Béthio nga xam ne Serigne Béthio bañ ko tëjee bañ ko bañ ko dugalee kaso ñoom ñoo ko fa fekk. est-ce que mës ngeen a dégg ñu ne Serigne Béthio bañ ko tëjee kaso ay doomam ma ko fekk ñoo ko fa fekk ay doomam mësuñu koo fekkee sa kaso ba mësuñu ko faa fekk ndax lan su mettee dañuy daw bu neexee ñu ñëw njabootam gi nga xam ne mooy ay taalibeem ñoo ko fekkoon sa kaso ba ñoo daan dund ak moom lu neex dund ak moom lu metti ndax lan Serigne Salif may santaa Serigne Béthio bu wér. man de barkib sëriñ Saliou su ma waxulee man duma gor man su ma waxulee man delloo lu ma sëriñ bee ci njukkal man su ma waxulee man duma gor faaw ma wax te tey laay gëj wax wax musumaa wax tey laay wax tey laay gëj wax ndax ñun kenn mënuñoo jënd kenn mënuñoo jënd rawatina ki nga xam ne dërëm moo ko tax a jóg liggéey sëriñ Tuubaa taxu koo jóg di dërëm moo ko tax a jóg dërëm moo ko tax a jóg ki nga xam ne nag moom la liggéeyee Serigne Touba taxu a jóg ñun ci ñun ci gannaaw ñun ci gannaaw kooku la ñuy daw bootu ji di ko jox suñuy dërëm di ko jox suñuy ñaar dërëm soxna Aida lu mu def neex nañu lu mu wax neex nañu lu mu wax neex nañu ndax da daan toog ak sëriñ Béthio di wax muy neex sëriñ Béthio kon tey bu fi Serigne Béthio jógee mu toog di wax ak ñi di mokk taalibe daf ñuy neex waaye nag. waa Sénégal ñoo xamul dellu damay wax ni jigéen ñi nga xam ne ñoo yore seen làmmiñ di tartari di wax te xamuñu ñoom nañu dem wuti ji seen ngërëmu boroom kër soxna Ayda mi ñuy xas moom soxna Ayda daal liggéey ba làq ngërëmul boroom këram ba boroom këram gërëm ko boroom këram dakaa gërëm ba àdduna yépp di seede àdduna yépp di seede ne Sëriñ Béthio gërëm na soxna Aida man mii de jigéen laa waaye soxna Aida dama koo ñee barkeb Sëriñ Tuuba soxna Aida dama koo ñee ñee ko man suma ma nekkul woon sax cantaakoon sax barki Sëriñ Tuuba soxna Aida dama koo ñee ndax nga dem ba làq sa sa sa sa ngërëmu boroom kër ñi nga xam ne dangay tartali yooyu seen làmmiñ di wax fexe leen am li soxna Aida am moo gën ngeen wax fexe leen am li soxna Aida am moo gën ngeen yore seen làmmiñ di tartari di wax dem leen gëstu ji kan mooy Serigne Béthio ba pare dem leen gëstu ji Serigne Béthio lépp lu mu def dafa am ay seede Serigne Béthio lu mu def dafa am ay seede bañ na ko ba bu daan waxtaan bu mbooloo bi toogee day wax naan ma tële jël. na ma rajo jël te xam ne lii du fi jóge te man dama fiy jóge sëriñ Béthio léppam léppam dafa leer barki sëriñ Touba ay njabootam ñoom ñoo bëgg taqal ginnaawam te mënuñu koo taqal ay njabootam ñoo bëgg taqal ginnaaw du ma wax sax ay njabootam ay doomam ñoo bëgg taqal ginnaawam te mënuñu koo taqal ñu ànd ak sëñ Saalu sëñ Saalu Gueule Tapée ñoom sëriñ Béthio da leen a xotti woon ba ci ay doomam moom sëriñ Béthio da na xotti woon ñun ñun ñun ñun ñun ci ñun ci ñun ci cant gi ñun dañuy juddoo yaroo ci lépp lañ xam ñun tey am na la nga xam ne buñ ko waxee àdduna bi tukki am na la nga xam ne buñ ko waxee fii <laughs> waaye am solo ñu Serigne Béthio ñun lañu gëm doyloo ko tey ak ëllëg soxna Aida lañu booleel lañu daan def ci Serigne Béthio dañ koy mottalee def ci soxna Aida. barke sëriñ Touba ndax ña nekkoon nag sëriñ bi Bordeaux ba sëriñ bi def secret bii ba ñu ñëwee mu ne dañoo dem ci ci ci ci ci Saalu Gueule Tapée mais dañoo dem jubal gis ci soxna ay ndax yéesal seen njébbal ci ñoom ndax la sëriñ Béthio moo leen ko wax sëriñ Béthio moo leen ko wax ndax sëriñ Béthio ci mu koy wax dafa jël ay seede waa Sénégal bu leen dof ubbi leen seeni bët di xool ndax ñun ñun ci képpaaru Serigne Béthio gii lañu nekk te mësuñu fee jóge li fi am ak li fi amul yépp xam nañ ko ñun dofuñu jën jàpp ñu ñun nekkuñu ay taalibe Serigne Béthio rek teg si de dañoo nekk ay njabootub Serigne Béthio lañu ay njabootub Serigne Béthio lañu ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yore seen làmmiñ di wax lu leen wóor leen wóorul dañu xalaat seen bàmmeel nañu xalaat ne ëllëg dinañ layoo ak seen borom su fekkee ne soxna Aida lañ bañ ba di ko waxal la nga xam ne amul ah bisu penc am na de bisu penc am na ndax suñu boroom nee na su dee man la ak sama mbokk ak ak sama jaami amul problème waaye jaam yi ak seeni mbokk ak seeni moroom waaw ku bañ soxna Aida nag ba nga dem bis penc soxna Aida nan la fa yàggal ndax la nga ko waxuloon wax leen loo leen xam wax leen seen trayu bàmmeel wax leen ko man de lu ma xamu ci nit duma ko wax man lu ma xamul ndax bañ naa ëllëg jàkkaaloo ak yow ñu naan maan kaay la nga waxoon ci diggante ñaar yi ndax sëriñ Béthio dañ ko fi waxal yëpp sëriñ Béthio waxal nañ ko fi lu ne nee nañ gi dafa am lu mu ciy def sëriñ Béthio day dem fële day jër yóoru lii day jër yóoru laa sëriñ Béthio dañ ko fi waxal yëpp xaaj ba xaajaat ba di sëriñ Béthio daj xaaj ba xaajaat ba soxna Aïda sëriñ Béthio nii nii la ko waxee woon nii ko waxee woon ñëpp toog sëriñ Béthio wax ko lii ne ko man sëriñ Sall ba may wax na ma yaay man maay yow ñëpp gëmuñu ma woon. yow it mënoo muusa ko mucc bari ci loolu ñuy ñaanal sëriñ Béthio mu yàgg fi lool te wér ndax Serigne Béthio jugu fi mooy soxna ayda sëriñ Béthio jugu fi mu ngi suñu biir jugu fi te du fi mësu jug du fi mësu jug moom soxna Aida taalibi sëriñ Béthio yàlla na ëpp ndam fa moom yàlla na ëpp ndam fa moom